ñu ngi woon ci ponki julli wala faratay julli mm-hmm. ñu rappelé waat ne fonk ponk julli yi ñuy waxtaane ak farata julli yi ñuy wax mooy mbir yi nga xamante ne bu ko jullit bu ko nit ki indiwulee julleem baaxul mm. donc jëloon nañ yéene mm-hmm. ak li nga xamante ne moom mooy kàbbaru armal ak taxaw gi ngay taxaw pour kàbbaru armal li nga xamante ne moom mooy fatiha jàng jàng fatiha ak taxaw pour jàng fatiha jàng fatiha ponk la ci julli taxaw pour jàng fatiha tamit ponk la ci biir julli bi maanaa jullit bi am kàttan te amul ngànt bu lislam nangu su taxawulee jàng fatiha julleem baaxul d'accord léegi nag jàng fatiha googu taxaw pour jàng fatiha ay étape la ki wér péng ne cocc kooku dafa war a taxaw jàng fatiha mhm. su munul taxaw jàng fatiha mu am ci lu mu sukkandiku taxaw fatiha mhm. su amul ci lu mu mën a sukkandiku taxaw jàng fatiha mu wéeru xam nga nit ñu bëri suñu mënul taxaw rek dañuy tok or taxaw ben étape la munul mënul taxaw taxaw am ci loo sukkandiku bo mënul am ci loo sukkandiku nga taxaw wéeru so mënul taxaw wéeru nag si ngay doog a toog mhm. wala nga tëdd mais da ngay gis nit ñoo ne rek dañuy daal di or boo munee taxaw benn ci état bu taxaw yi nga toog soo jullee sa julli sa julli baaxul donc yéene ak li nga xamante ne moom mooy euh, kabbaruk armal mm-hmm. taxaw pour kabbaruk armal jàng fatiha ak li nga xamante ne moom mooy euh, taxaw pour jàng fatiha juróomeel juróom ponk farata bi mooy ruko ruko mooy nga jël sa kii nii jàpp ko teg ko si sa bëti wóomi wóomi mhm. ba pare nga sëgg ci ngirum Malick moo ne boo xawee sëgg nii nga xam ne sa sa digg wàcc na wàcc na wàcc na la mais lii mat maa ngi lii mat moo di ne nga def nii mhm. nga xam ne sa ndigg bi dafay dafay jub mhm. yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa tere nit di nii nga xam ne léeg-léeg nga gis ñoo xam ne dañu naan ni allahu akbar wàcc mi lii lii yonent bi sallallahu alayhi da koo tere mhm. donc nii la ñuy def ne xam ne digg ginnaaw gi day jub nii tamit dañ koy dañ koy tere donte ne ci ngiru Malik bu defee nii indi na indi na rukkoo daal parce que mhm. lii sëgg la donc mais nag li gën ni yonent bi wax mooy ci digg doom bi doo ko aj nii doo ko def nii beneen bi tamit siggi ci rukkoo ne allahu akbar ba taxaw faratal euh, ponk la Fina nag ñu bëri fii la seen julli di demee kii nii parce que da gis ñoo xam bu ñuy julli buñ allahu akbar bismillahi rahmani rahim Fatihah. fatiha ba mu jeex allahu akbar sami allahu rek dem duñu taxaw c'est-à-dire sëgg nii mhm. ponk la siggi ba sa yaxu ndigg bi dellu ponk la mm. siggi ba sa bi la mhm. donc ruko jël nañ ko tey ak li nga xamante ne mooy siggi ci ruko loolu ñu bàyyi ci xel surtout ñenn ñi bu ñuy bu ñuy julli allahu akbar sami allahu liman rek dem mais allahu akbar sami allahu liman hamida taxaw doog a wàcc sujjóot tamit ponk la sujjóot mooy nga def nii jë sa jë nga teg ko ci suuf ni ponk la jë bi rek bu tegoo loolu mooy ponk yeneen bërëb yi ñuy yii nii yi ñu sopp la mais tey sa jë bu defoon nii sa jë rek bu tegoo ci suuf loolu ponk la nga siggi ci sujjóot tamit ba sa yax dal ponk la mais su fekkente ne da ngay gis ñoo xam ne nii lañuy ñuy def allahu akbar bi baaxul parce que bàyyi nga ay ponk te saaboo ni ma wax saaboo bàyyee ponk rek

Mhm. parce que waa ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko waxoon ne soo ñëwee di julli summarka na nga rukoo hatta ta'tadila raaki'an ba sa mhm. rukoo boobu nga am ci équilibre mhm. léegi nag bu boobaa soo nee ni allahu akbar subhaana rabbi al azim ngay wax subhaana rabbi al azim <laughs> subhaana rabbi al azim subhaana rabbi al azim loolu version la su la neexee nga wax subhaana rabbi al azim wa bihamdi subhaana rabbi al azim wa bihamdi سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من بو فكين ne كسي kase yaay julli rabbana walaka nga dogo wax allahu akbar so su jootee tamit jësa jë teg si suuf nga wax subhana rabbiya al aala subhana rabbiya al aala subhana rabbiya al aala version la wala nga wax subhaana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhaana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhaana rabbiyal nga gis ni lol motax borom xam-xam yi dañ foo gisee kuy taftafi tafee jullem ñaar mo mun a imam tayal wala xamul li ñuy wax ci julli